réunion bi ñu taxawal tey euh, def ko ci jàmm ak salaam euh, ci njiital euh, le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam Mouhamed Diouf incha allah ak chef de service yi nga xam te ne ñoom ñoo nekk ci ginnaawam yëpp di ko jàppale ci liggéey boobu ñu ñëw ci kër xalifa Thierno Djibril Ousmane Daoud Ba muy Thierno Ahmed Thierno Djibril Ousmane Daoud Ba ak njabootu Thierno Djibi ak am di jàmm yi ak taalibe yi mbokk yi yëpp. réunion bu am solo réunion bu jaar yoon macha allah su ko defee ngir lu jëm ci ziyaara bi nga xamante ne ren mooy fanweer at ak ñaar ñu koy taxawal ziyaara boo xamante ne ni jaratul ñu koy publicité jaratul ñu koy ñu koy fàttali nit ñi jaratul ñu koy wax nit ñi ndax dayo bi mu am ak yàgg bi mu at yi mu am ak dayo bi mu am Euh, ba àdduna bi yëpp euh, tax waxtu bi bu ñëwee seen xel Bambilor lay nekk euh, bu waxtu bi ñëwee tamit ku mën a ñëw foo mën a jógee da nga ñëw yegg si fii ci Bambilor ci dëkk bu tedd bi ñëw ziar si góor gu tedd gi ala kulli xalin ak njabootam gi mu fi bàyyi nga xamante ne ki nekk ci bopp bi tey mooy xalifa bi Thierno Ahmed donc ñu ngi am mbégte at bu nekk aussi ñu indi benn thème muy sunu participation ci euh, dëkk bi muy doxee ak euh, sunu xalaat ci li nga xamante ne nii euh, pour ñun incha allah rabbi war nañ ko mën a dolli ci tarbiya bi nga xamante ne moom la njaboot gi di waajur yi di tarbiya seen i doom wala sëriñ aussi di tarbiya di yar doomam wa di yar njabootam ay taalibeem wala même bu dee instituteur wala wala formateur di yar doomam ala kulli xaalin wax nga ko thème mu ren bi mu ngi nekk ci jikko yi tamit jikko yi jikko yi jikko yi ndax Euh, jikko bu jagee rek nit jag euh, comme ni ko xalifa bi waxee léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne innama bu estu li utammima makarim al euh, li tax yàlla yónni ma man ci ci kaw suuf mooy ma mottali euh, jikko yi nga xamante ne ni ñoo gën a ñoŋ ñoo gën a rafet ñoo gën a kawe ci yàlla ma indil ko nit ñi ba mu suufee ba mu yegsi ci ñoom ñu mën ko utiliser ndax seen àdduna ak seen àllaaxira baax donc euh, li am solo mooy ne euh, thème yooyu war na yaatu. ñu junj rek ne incha allahu rabbi thème bu am solo la thème la boo xamante ne dafay delluwaat ci kër yi. delluwaat ci daara yi delluwaat ci même ci bërëbu liggéeyukaay yi incha allah euh, ndax euh, xale dafay yaru baax na ci moom mag dafay yaru aussi parce que am na ñoo xamante ne nii dañoo màgg màggee neneen donc euh, ñëpp ñu indil leen yaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam yar yëpp nag boobu moo ci gën. Euh, te ñun boobu la ñu tàmm boobu la ñu tànn boobu la ñu taamu te boobu la ñu gis ne mooy modèle bi gën ci àdduna bi euh, donc yaru yonent bi nag mënul nekk lu dul ñu delloo ko ci alquran delloo ko ci sunna euh, delloo ko ci incha allahu rabbi sunu mag ci baax yi liñ fi bàyyi woon incha allah